asalaamaaleykum gars yi naa leen daleen ak jàmm Sen Sport 221 dañu koy doore ak li nga xamante ne muy kàddu yi nga xam ne Yaya Touré daf ko daal di yëkkati jëmee ko ci li nga xamante ne mooy sélection nationale bii di Sénégal gannaaw boo xam ne ñu ngi ci wàccaay dem ci coupe du monde boobule moom nag gannaaw bi mu la waxtaan ak rajo France bii di RFI daal dinañ xam ne ne ñi nga xamante ni kat ñooy Sénégal gis na ne war nañu mën a def coupe du monde bu baax a baax donte ne nee na groupe bi nga xam ne Sénégal ci la bokk nee na ñi nga xamante ne ñoo di ñooy favori ci groupe bi jàppee ba ñooy favori waaye gis na ne Sénégal war na mën a def li nga xamante ni dégg nga mooy tournoi bu baax a baax ci coupe du monde boobu te mu ne Sénégal foog ñu bàyyi xel équipe bu mel ni Équateur Équateur ak Qatar gi nga xam ne ñoom xañ na ñu ngi doon jàppee ne ay ay outsider lañ ci groupe bi. mu ne il faut Sénégal bàyyi xel ñooñu bu baax a baax rawatina ñi nga xamante ñoo di Équateur ndax nee na Équateur équipe sud américain yi dañoo jafee dóor équipe yooyu jafee dóor lañu te équipe bu mel ni Équateur dañoo tàmm di jouer ak équipe yu mag yu ci mel ni Argentine wala Brésil voilà tàmm nañ di jouer ak équipe yu mag yooyu le kon ñoom pour arrêter arrêter li nga xamante ne mooy benn ci équipe yu mag yi ci coupe du monde bi loolu mën na bañ a nekk jafe-jafe bu rëy ci ñoom moo tax foog Sénégal bàyyi leen xel bu baax a baax ñu bañ leen xepp ndax li nga xamante ne moo leen indi fii rek loolu day wane ne maanaam jëruñu xeeb voilà maanaam ni ñu def ba qualifié ndax li fi indi seen i morom mu leen fi indi kon nekk nañu équipe yoo xam ne war nañ leen bàyyi xel muy équipe bu mel ni Qatar wala boog ñii di waa Équateur bu fekkente ne bëgg nañu sori ci coupe du monde bi waaye ànd ak loolu yëpp nee na moom mu ngi bëgg ñi nga xamante ñoo de Sénégal ñu jàll maanaam dem fa sori ci li nga xamante ne mooy compétition bi ak yeneen équipe bu africain yi ndax li nga xamante ni moom mooy équipe bu africain yi gis na ne war nañoo mën a sori ci li nga xamante ni mooy coupe de coupe du monde boobu la rawatina ñii di waa Sénégal comme ni mu ko dal di xamle ndax nee na Sénégal comme ñoo gagné li nga xamante ne mooy coupe d'Afrique bi te ba noppi ñu ngi am jour yu mag yoo xamante ne ci club yu mag la ñuy footballé ñëw na ci mbirum euh, dégg nga jour bu nekk ak fa muy footballé ku ci mel ni Sadio maane ak jii di Idrissa Gana Gueye ñëw na ci Koulibaly loolu yëpp ñëw na ci nee moo tax Sénégal équipe la boo xam ne gis na daal war na mën a def li nga xamante ne mooy tournoi bu baax a baax wax na sax ci mbirum Sadio Mané ne moom gis na ne Sadio Mané war na mën a gagné li nga xamante ne mooy Ballon d'Or moom ki nga xamante ne mooy Yaya ci Sadio Mané moomu ne gis nañu ne tey ji ay euh, image yoo xam ne mu ngi circulé ci réseaux sociaux yi moom Sadio Mané mu ngi entraîné entraînement bu metti foofule ci Espagne gannaaw boo xamante ni kat signé na ak na bu yàggul dara te ñii di Bayern tàmbalee guñu li nga xamante ni mooy pré-saison yi moom dèjà moom tàmbali na ko ndax Sadio Mané kat ñu fàttali ne dañuy xaar lu bari ci moom ñii di waa Bayern yaakaar bu réeree la ñu am ci moom bu ñu sukkas na ko ci interview boo ni kii di dégg nga Nagelsmann mu ngi ko doon def rek keroog bi ñu signé Sadio Mané ak li nga xamante ni moom fi mu séntu Sadio Mané maanaam foofoo kawee ak li muy xaar ci moom xañ na lii moo tax ba Sadio Mané comme moom liggéeykat la mu deel a tàmbali li nga xamante ne mooy prestation yi en attendant gars yi di ñëw ci li nga xamante ne mooy regroupement yooyu nga xam ne xëñ na war nañ ko amal filee ki fan ci kanam moom dèjà mu ngi foofu la ci Espagne di rey boppam voilà image yooyu ngeen di gis bu ñu sukkandikoo ci kay di xibaar yi foofu la ca Mallorca la koy defee di tàggat li nga xamante ne mooy yaramam ngir war a mën a dégg nga maam euh, maintenir formam avant ñuy dugg ci li nga xamante ni dégg nga mooy saison bii ñu dëkkmal

dañu bëgg a dugg ci saison bi la te ànd ak loolu ñu ci bëgg boole ki nga xamante ne mooy Lewandowski bi la bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi moo tax Paris ñu ngi defi pexe ngir signé Lewandowski boobule ki nga xamante ni na mooy Frenkie de Jong xibaar yi biral nañu ne diggante Barcelone ak Manchester United moom déggoo nañu lu aju ci transfert bi lenn nag mooy li nga xamante ne moo gàllankoor mbir ci jamono yi mooy ki nga xamante ne mooy Frenkie de Jong ci jëmmi boppam waaye ñaari club bi moom déggoo nañ ci njëkk gi nga xamante ni moo aju ci transfert boobule 85 millions d'euros la waaye 85 millions d'euros yi nii lay demee maanaam 65 millions d'euros yi moom la ñii di euh, a fay Barcelone 20 millions yi moom bonus lay doon voilà waaye nag ki nga xamante ne mooy de moom la nekk ngir xool ndax moom dina accepter pour mën a dem foofule ca Manchester United ndax kat li coow li bari bari moom Frenkie de Jong bàyyiwul xel mukk dem foofu la ca Manchester United bëggul a génn club tax foofu beneen wax la fi mu ne ci loolu la gars yi nekk yi xool naka lañ koy convaincre ba mu war a dem fële ca Angleterre bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar beneen problème nag boo xam ne Barcelone am na ko ci jamono bi mooy ki nga xamante mooy Antoine Madrid mu àndoon option d'achat waaye nag Atlético Madrid fi mu ne nii dañoo nekk ci problème ndax problème yi ñu nekk mooy li nga xamante mooy app bi ñu leen appal ci li nga xamante mooy mënuñ cee inscrire kenn lan moo waral loolu parce que li nga xamante ne mooy app bi ñu leen appal euh, ci di nga maam masse salariale bi dafa dal di ëpp fii mu ne nii fowu ñu wàññi te loolu nag moo tax ñu bëgg delloo ki nga xamante ne mooy Griezmann ca Barcelone ndax salaire am nekk na loo xam ne lu diis la te jàpp nañ ne xëy na bu ñu génnee Griezmann ci mbir mi dinañu mën a inscrire yeneen joueur kon Barcelone gannaaw boo xamante ne ñoom itam ci pexe yooyu dañu nekkoon ngir war a mën a inscrire ku mel ni Franck Kessié wala ñoom ba léegi bindaguñ leen ci équipe bi bëggoon xool naka la ñuy wàññee ñenn ñi ba doot war a dugal ñenn ñi ñenn ñi keneen a ngi ñëw muy Griezmann te bu dee Griezmann dolleeku na ci mbir yi kon beneen problème lay doon pour Barcelone faw ñu continuer di dénk maam wàññi wala ñu xool yan pexe la ñuy def ba jaay Antoine Griezmann ndax moom it salaire bu diis la amee te bu duggaatee ci club boobu di Barcelone rek dina nekk beneen problème boo xam ne xëy na du yombal ñëw ak yeneen joueurs yi nga xamante ni ñoom waa Barça bëgg nañ leen signé bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi fële ca série A moom kii di xibaar dañoo biral ne fi mu ne nii kat dafa am yeneen sart yu bees yoo xam ne génne nañu ko wala boog dañuy tëggaat li nga xamante mooy championnat bi ci yan anam mooy bu fekkente ne joué nañu championnat bi ba mu jeex ñu xool ki nga xamante moo nekk ci première place bi ak ki xamante ne mooy final dañuy joué final xam nga li ñu xamoon mooy championnat bu fekkente ne ki jiitu ak ki topp ci kawam dañoo tolloo ay poñ maanaam dañuy gis ne foofu goal différence la xool ki gën a baax goal différence mën na gagné li nga Angleterre ak yeneen championnat yu bëree bëri bu dee ci Espagne moom xeet to xeet xool muy aller ak maanaam seen match yi naka la demee woon yéen ñaar ñi nga xam ne yéen nekk ci bopp classement bi ana kan moo dooroon kan ak ñaata la dooroon kan muy xeet to loolu la faral di xool bu dee fële nag ci Série A bi maanaam li nga xamante mooy goal différence boobu nga xam ne ci la doon sukkasnde ko bu ñu tolloo ay poñ loolu la équipe bi nekk première ak bi nekk deuxième te ñu tolloo ay poñ dañu joué li nga xamante ne mooy final bi loolu nag saison bii di ñëw lay door bu ñu sukkandekoo ci kayiti xibaar yi. Manchester United ñoom ñu ngi defi pexe ngir signé wala boog jaay ki nga xamante ne mooy Alex Telles Alex Telles bi nga xamante ab latéral gauche euh, brésilien la nekk foofu la ca Manchester United bi nga xam ne moom wax ne benn saison képp la fa def ndax ni ki daaw rek ko dal di woon signé mu nekk nag joueur bu baax ku mën a football mais Man United ñoom dèjà rek signé nañu beneen latéral gauche bu bees te mu war fa nekk fekk ak ki nga te kayiti xibaar li ñu biral mooy kii di Alex Telles moom la ñu teg ci marché bi jamono yi le United Bayern Munich moom jamono bii ñu ngi wër ki nga xam ne moo war a remplacer Lewandowski xibaar yi biral nañu ne fii mu ne nii ki nga xamante moom la ñu wax Jonathan David Jonathan David la ñu bëgg signé muy attaquant wu Lille kayiti xibaar yi biral nañu ne moom juróom euh, mooy Lewandowski kayiti xibaar bi biral na ne li nga xamante mooy njëg gi nga xam ne moom la ñu war a ci transfert boobu ñu ngi koy xayma ci 45 millions loolu la ki nga xamante mooy Jonathan David di jar ci jamono bile gannaaw boo xamee ne dese na contrat ak Lille ba 2025 voilà gars yi looloo fi ruusandi woon ci tënkoom xibaar continuer leen di suivre Sen Sport 221 sport news channel